bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Côte d'Ivoire yëpp noo ngi leen di nuyu euh, comme ni nga xam ne noonu lañ leen ko waxe woon sànq rek ci suñu vidéo bi weesu euh, ba léegi ñu ngi fii ci résidence Serigne Touba Khadim Rasoul fii ci Touba poro waaye tam ci lii nga xam ne si ne mooy bisu euh, fàttaliku ñibbi Serigne ñibbi si Serigne Touba Khadim Rasoul ci biir Touba Euh, ni nga xam ne si ne noonu la ko waa daayira Touba Yaa Mousou Kouro baaxoo defal at mu jor de euh, daañu fi daje fii ci kër sëñ bi jàngi fi alquran jàngi xaside salaatu ala nabi euh, ñaanal way dawlu itam waaye itam fàttaliku lii nga xam ne si ne moo ñu di si sëriñ bi ci Touba Yaa si Kouro noonu ngeen ko gisee noonu. Euh, ñi nga xam ne si ni ñooy mbokki taalibe it euh, comme at mu jot rek nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee euh, noonu lañ koy defee toujours ngir gis leen yi ñu nekk ci li nga xam ne si ni moo di liggéey bi kii nag di Serigne Cheikh Sarr bokk ci Serigne Thiarène yi moom itam at mu jot muy ñëw fii ci Touba di nemmi ci taalibe yi mu bokk ci waa kër Serigne Cheikh Sarr moom Serigne Cheikh saar mii Euh, moom ngeen jàkkaar lool euh, mu nekk fii ci tubaa Touba Yamoussoukro euh, di doog di agsi ci li nga xam ne si ne mooy bis bi waaye tam fii ci kër Serigne Touba Khadim Rasoul di fàttaliku li nga xam ne si ne moo di bis bi ñu fàttaliku Serigne Touba Khadim Rasoul Serigne Cheikh Sarr moom ngeen jàkkaarloo loolu Euh, mu doon kilifa bu baax bu lewet waaye tam bu dal waaye tam bu am ak yëpp ci mbokk yi euh, rawatina ci mbokki taalibe yi nii nga xam ne si ne noonu la mel ci waa Touba Yamoussoukro yëpp nag euh, wax dëgg yàlla loolu waa Touba Yamoussoukro ñoom xam nañ ko bu baax ndax yàgg nañu jëflante ak moom yàgg nañu saafonte ak moom moom Serigne Cheikh Sarr bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Côte d'Ivoire yëpp ñoo euh, ngi leen di nuyu euh, ñi ngi fii ci résidence Serigne Touba Khadim Rasoul fii ci Touba Yamoussoukro waaye tam di fàttaliku bis bii nga xam ne ci la Serigne Touba Khadim Rasoul ñibbi si woon Touba te Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké andi woon ko Touba. Euh, bis boobu la ñuy fàttali ku nekk tey jii ci adduna bi yëpp waaye rawatina fii ci Touba Yamoussoukro euh, fii ci résidence Serigne Touba Khadim Rassoul mu dëppook dimanche le 6 août 2023 1445 euh, gannaaw gàddaay gi bis bi nag doon na bis boo xam ne si ne waa Yamoussoukro at mu jot dañ ci amal taxawaay bu mag ànd ko ak ki nga xam ne si ne moo di jëwriñ ji di Serigne Balla Diop ñu jàkkaarloo ak ki nga xam ne si ne mooy Serigne Cheikhouna Mbacké Euh, moom itam nekk imam fii ci tubaay Touba Yamoussoukro waaye itam mu ñëw wuutu fi kii nga xam ne si ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Diop mu fegoo ak sëriñ Ndiaga Mbacke moom itam mu jógee euh, Darou Mouhty ñëw fekk si lii nga xam ne si mooy màggal gi waaye itam ak kii nga xam ne mooy euh, Serigne. Cheikh Guèye moom itam kenn du ko laajte eh, Serigne Balla Diop moom ngeen jàkkaaral noonu moom itam mooy saafonte ak ki nga xam ne mooy imam bi imam bi nag moom mooy imam bi nga xam ne si ne moo fu nekk ci eh, jàkkay Cheikh Tidiane yi ndax ku nekk xam ne ne eh, fii communauté sénégalaise bi yëpp benn benn lañ bu kër Cheikh Tidiane xewle murid yëpp dañuy def benn délégation dem fa waaye bu kër seex Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul xewle tam Tidiane yëpp dañuy def benn délégation ñëw fii kon euh, famille sénégalaise bi nga xam ne si ñoo nekk fii Touba Yamoussoukro benn bopp lañ euh, ñoo bokk itam benn jubluwaay euh, di amal liggéey bu rafet boo xam ne si ne saa bu bi wootee ñoom ñëpp ñu ànd ko Euh, ñi ngi am contentement bu baax euh, ci seenu taxawaay waaye tam ci seenu Pastef ak ci seenu bëgg lu baax euh, Serigne Balla Diop ngeen jàkkarloo noonu moom mi nga xam ne si ne itam moo dirigé chantier bii nga xam ne si ne moo nekk fii ci résidence Serigne Touba Khadim Rassoul muy wàllu jumaa ji ci wàllu liggéey bi. ngeen jàkkaarloo ak kii nga xam ne mooy Serigne Mahmoudou Ñing moom itam. Euh, mu bokk ci euh, jëwriñ yi nga xam ne si ne ñu ngi topp ci gannaaw Serigne Balla Diop ak Serigne Baye Modou Thiam euh, ak Serigne El Hadj Falilou Sarr Serigne El Hadj Sylla ñoom ñëpp kenn ku ci rek yaa ngi toog rek di xaar ndigal. ak mbokki taalibe yi nga xam ne si ne ñoo nekk fii ci Touba Yamoussoukro euh, jumaa ji nag comme ni nga xam ne si noonu lañ leen ko waxee woon rek ba léegi loolu la ñu dellu si di ko bamtuwaat euh, ngeen gis nii li nga xam ne si moom mooy portail yi monté nañ ko ba noppi ak li nga xam ne si mooy fenêtre yi euh, moom itam monté nañ ko ba noppi léegi bi itam nag moom mel ne ko kon des na li nga xam ne siine mooy décor bi ci kaw gi te loolu ay ay ay ay millions millions yi moom moo koy defar ndax jumaa ji dafa tuutiwut Euh, bu loolu jàllee itam li nga xam ne si ne mooy wàllu karo itam loolu ku nekk xam na ne ay millions yi millions moo ko defar ndax dañuy karu biir gi ak biti gi euh, lii nga xam ne mooy kaw soroor bi moom euh, karo woon nañ ko ba noppi waaye nag mu des finition yi nga xam ne si ne dis na ci biti ak yi nga xam ne si ne diis na ko amal ci biir jumaa ji kon daal nañ bàyyil xel ci ne bu fekkante ne daal ci gàttal defoon nañ ci euh, cinquante millions nañ bàyyil xel ci ne e quarante millions pour l'instant bi ñuy xaaraat kon euh, ci loo xam ne si ne war naa mën àggale li nga xam ne mooy liggéey bi. liggéey bi nag wax dëgg yàlla bañ ko tàmbalee ba léegi itam taxawut mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñu ngi ci ci waxtu wu nekk ci saa su nekk. Euh, di ci amal seen kemtulaay kàttan euh, euh, taxul benn yoon bis bu yàlla sàkk maçon yi saa bu xëy si ñi nga xëy si lu ñu fa war ñu liggéey ñi nga xam ne si ñooy menuisier itam nga ne si ñoo nekk ci wàllu portail itam ñi ngi ci seen finition mu des nag loolu nga xam ne moom lañ leen waxoon mooy wàllu karo yi ak li nga xam ne si ne mooy décor bi nga xam ne si ne moom la ñuy amal ci biir wàllu électricité bi moom wax dëgg yàlla noppi woon na bu yàgg ci jamono bi nga xam ne si ne ñi ngi fi tàmbale woon di jullee Euh, kon rek ñuy sàkku ci mbokk yi nga xam ne si bëgg nañ ci dugal seenu ñaq rek euh, ci euh, vidéo bi nga xam numéro bi nga xam ne si moom moo affiche ci vidéo bi bu ko defee kenn ku ci nekk rek man nga ci dugal saw ñaq te xam ne lu ci waay def sa bopp nga ko defal di leen fàttali nag ne bu ñuy wax màggal njàngum alxuraan mooy baas bi moo tax ñi nga xam ne si ñooy waa daayira Yamoussoukro ñoom itam saa bu ñu see rek lu topp ci neefir imam yi dañuy daal di ñëw euh, ci fii nga xam ne si ne mooy jumaa ji daal di ubbi kaamil yi daal di koy séddale mbokki taalibe yi euh, kenn ku nekk jël ci ab jukki ñu jàng jàng jàng ba mu naaj bu jàngee ba mu naaj nag ñi nga xam ne si ne ñoom ñooy kat yi doogu ñëw jaaxaat ñaaxaat nit ñi waaye itam fàttaliwaat leen seen borom fàttaliwaat leen dénkaan yi waaye fàttaliwaat leen tam lii nga xam ne si ne mooy yoonu murid li nga xam ne si ne noonu la war a doxee waaye lii nga xam ne siin mooy biis bu tey bii gis na ci ànd ak eh, kii di Serigne Cheikhouna Mbacké moom ngeen jàkkaarloo nii nga xam ne ektal mooy eh, imam bi wóotu fi kii di Serigne Moustapha Diop eh, Serigne Cheikhouna Mbacké mi dana fi amal waxtaan ci kanam tuuti incha allah ci li nga xam ne si mooy jaar jaar yi Serigne Touba Khadim Rasoul waaye itam jaar jaar yi Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké al Karim Euh, bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Côte d'Ivoire yëpp ñoo ngi leen di nuyu euh, ñu ngi fii ci résidence Serigne Touba Xaadimu Rasuul fii ci Touba Yamoussoukro euh, ñi ngi nag fii ci waañ wi jàkkaarloo ak ki nga xam ni si mooy Soxna Ndey Fall di présidente daaira Touba Darou Khoudoss fii ci Touba Yamoussoukro dimanche le 6 août deux mille vingt trois mille quatre cent quarante cinq muy bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku kii nga xam ne si ne mooy Serigne Touba bu Rassoul waaye tam di fàttaliku euh, kii nga xam ne si ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké bi nga xam ne si ne moom moo amaloon loolu euh, ba tey jii ñu di ko fàttaliku ay ati at ci euh, ginnaaw loolu xam naa dañuy dem jàkkaarloo ak kii nga xam ne si mooy suñu tante Soxna Ndeye Fall bu ko defee ñu waxtaan ak moom mu gën ñoo leeralal bu baax ci lii nga xam ne si mooy bisub euh, màggalu euh, Daaru Xuddoos ñu naan ko màggalu Sëñ Seex waaye lu mu ci man di doon rek lu mu ci man di doon nag bàyyi xel ci ne moom mooy bis bi nga xam ne si ne ci la Serigne Touba Khadim Rasoul euh, ñibbi si woon Touba te Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké amaloon jataay bu kawe boobu waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalib yi comme ni nga xam ne noonu lañ leen ko waxee woon rek euh, ñi ngi fii ci Touba Yamoussoukro dimanche le 6 août 2023 ci résidence Serigne Touba Khadim Rassoul waaye tam fii ci waañ wi jàkkaarloo ak sunu tante Soxna Ndeye Fall moom bi nga xam ne mooy présidente yaa Touba Yamoussoukro rawatina fii li nga xam ne mooy daaira euh, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké sunu tante Soxna nday ñi ngi lay nuyu yàgg nañu fee màggal nga yàgg ko fekkee waaye yàgg ci am tax waay bu rafet euh, bari ren ñu doon ñaan yàlla fekkewaat ko yàlla dogal na fekkewaat nañ ko euh, sunu tante ñu ngi lay nuyu lu bari te di la siyaar. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare bokki jullit yëpp fi teew di sant bu baax a baax a baax di wax dang maanaam tàmbali nañ ko ba yàlla nañ ko yëgaleeg siin Adja Ndeye Sylla Adja Ndeye Diaw Adja ñëpp ngi fi ajaa mi ñu ngi daal moo fi manqué ca loxoom manqué wut ak Ndoumbé Seck ak ñëpp màggal gi nag moom wax dëgg yàlla macha allah ren moom daal yéemu berne daal nañ ko commencé dañ ko commencé matin ba 22h lu waay bëgg yaay sosi lépp am na ceebu ganaar am na jën am na mbaxal am na. dama daa am na ceeb am na lépp am na macha allah xale yi war a dugg ci waañ xele yaa ngi ci waañ wi ñëpp ngi ci waañ wi macha allah maa ngi sant bokk jullit yëpp da bokk yi fi teew yëpp maa ngi leen di sant di góor di jigéen ak waa kër sa Cheikh Cheikh Tidiane ñëpp kenn maa ngi ko dal dëgg yàlla kontaan naa bu baax macha allah ren daal moom avancement bi daa yokk waana wàññi ko fenn. waaw suñu tante soxna nday eh, ñu dolli la sant bu baax eh, di la gërëm di la jaajëfal ci leeral yi eh, ndax buñ bëggoon a xam yaata mban ngeen taal ak ñaata bërëgoy ceeb moom ngeen suur ak nag itam classe bi soxna kii soxna Ndeye Sylla fii nii moom kontaan gis nga ko mi ngi ci tomate ji rek ñi sant Seye ñi sant Cissé ñoom gis nga ko waaw ak ñi sant ñi ñi sant ñi yaakaar naa tey moom duñ wax dara Euh, bu ñu bëggoon a xam euh, ñaata bërigo ceeb ngeen ngeen suur ak nag yi euh, bu dee fekkee wenn la wala bu dee dafa am ay ginaar yu ko compagnie lu ci mën a doon nga gën ko leeral ñu sant ñi sëy ah waaw wax dëgg yàlla nag moom jënd nañ nagu 700000 nagu 700000 jënd nañ ko ah lépp nag li ma la wax am na bernde yi moom yaay société nee naa la mbaxal am na dama daa am na ceeb am na maanaam daal da leen kontaan ñi sant Dieng daal ak mbéngeen yi moom ñooñu moom moom li maa limu leen moom ñooñu moom ñu ngi ci waañ wi di reer rek di kontaan wax dëgg yàlla santam kontaan nan bu baax a baax sur nan moom mbana yi moom da ngay xool ba sa bët yam wàññi bi kenn mënu la koo wax tey moom da nga xam ne tey aaye Daaru Xudoos moo aaye ko aaye war sa moom maami Sëriñ Mbàkke Soxna Lo moo aaye eh, jërëjëf suñu tante Soxna Ndey fal eh, noonu nga ko defee woon daaw eh, dellusiwaat gi ci ren waaw waaw aja aja ndey si la mel na ne que lii ñu la fekk moom xam naa ne loo man la lool moom duñ duñ ci laaj liñ la laaj kay mooy li nga xam ne si mooy bis bi noo ko gisee xanaa julli julli ci sant yàlla baax a baax di julli gërënte bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba wéer a wéer a wéer di xam jërëjëf Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba lii lépp rek Serigne Touba la waaw màggal gi moom mi ngi nii rek mel na nam daan mel lépp ak dara manki yaay faal mam du gis dara loo xam ne day manki ceeb yaa ngi fi fi doma daa ngi fi supp kaa ngi dañ ko ren tufay ak allah <laughs> wallaay say moom allah rek macha allah sant ñëpp gërëm ñëpp yaa mos kër moom ñëpp benn lañ amul kër sëñ Touba amul kër Cheikh Maam Alaaji Alaaji Malick ñëpp benn lañ ñëpp ñëpp benn ñëpp ngi ko sant baax di sant rek mm. di ñaan yàlla ñu may ñu fan bu ñu teewaat ko ay màggal yu bare bare bare bare barke Sëñ Tuubaa jërëjëf waaw kay jërëjëf Adja soxna Ndeye lukuwaal bu baax suñu tante soxna Ndumbe Seck Adja Ami ñi ngi soxna Xujja Seck ñoom itam ñu daa ko ànd ak ñun waaye yàlla dogal tey jii ña nga Sénégal eh, di ko fa màggale waaye nag seen xol ak seen xalaat eh, yëpp mi ngi fi tey seen xol ak seen xalaat lépp a ngi fi Ayane Dumé day woote rek ndeysaan day fu mu toll mi ngi woote manqué nañu lool moo ko jaag Ayane Dumé ak Kële <laughs> Adja am ñi ñoom ñëpp day wax yàlla ñëpp may seen xale fi fu mu toll dañuy woote di nemmiku di teg di ngi teg ñu rek waaw macha allah jërëjëf. waaw mel na ni que ñoom nekkuñu fi waaye mel na ni que ñi ngi fi ndax xam naa ne lépp ñu ngi koy seetaan ci daara yi soppi Serigne Touba waaye itam di ko mën a am ci eh, daara yi Touba Yamoussoukro waaw euh, sunu yaay ñu ngi lay nuyu lu bari te di la siyaar. ah d'accord ok kon ñoom ñu ngi jégalu euh, soxna Ami Ndiaye. ñu ngi lay siyaar moytul waa Njuubeen yi wax la dara de ngay wax rek boo wax rek sinon lu ko may waa Njuubeen yi daañu la wax dara de. Ah, waaw dara Njuubeen ma wax dara. waaw classe Balla Diop geeg. xam naa ma ngay lekk ceeb Sénégal. waaw classe Moussa Diop classe Balla Diop. ña ngay lekk ceeb rek mënuñu maa sum. waaw bis bi noo ko gisee. ah kay bis bi de moom ñëpp fi kenn manqué day faal borom daal ku des defar na lépp moom ñëw nañ di ko jàppale si ci bis bi ndax borom bis bi moo ñëpp yàlla euh, mu nekkoon soxna Ami Ndiaye moom itam euh, ñëwoon fii ci waañ wi euh, sunu yaay soxna Ndey xam naa dinaa dellu si waat de ndax mel na ne que am na loo xam ne si at mu jot ñu daa ko amal daa ko teg ci loxol sunu. tante soxna Ndumbe Seck yàlla dogal na nekku fi yow yaa fi nekk mooy lii nga xam ne si ne mooy euh, euh, carte barkeelu daayira Muxaddamatul Xidma euh, yi nga xam ne si ne moom la ñu waajee le 18 safar te loolu yàlla dogaloon at yi yëpp ñu tegoon ko ci sama loxo saa bu màggal gi jubsee ñu soññee ko bu koor gi jubsee ñu soññee ko tey carte yi mel na ne que mi ngi fi xam naa jombul ñu ko teg sa loxo bu ko defee nga jox ko mbokki soxna yi ñoom itam ñu barkeelu ci incha allah loolu moom ndeyee saa mag ndax moo toog moo toog gannaaw ndey si ah, Adja. ndey place su moo ko toog. en en ah, ah, soxna ndey si la voilà. waaw soxna. mag noonu yaay mag waaw de toute daal kon euh, carte daara Moukhaddamatoul Khidma yi daañu ko teg ci loxol Adja ndox ndey si la bu ko defee mu jox ko soxna yi léegi mooy mu Moukhaddamatoul Khidma yi. soxna euh, Ndumbe sekk lañ ko daa jox waaw moom moo ko daa jox soxna yi kenn ku nekk barkeelu ci mooy li nga xam ne si mooy wàccaayu màggalu euh, Touba yi loolu tam naka jekk at mu jot dañ ko fi joxe ak li nga xam ne si ne moom mooy koor gi waaw loolu daayira boobu man maa leen fi représenté fii màggal gi lañ koy soññee ak koor gi waaw am na soxna yu bari yoo xam ne sax ñoom ñi ngi fi euh, am nañ carte de membre euh, chaque at bu njot dañuy joxe seen i participation waaw ah. waaw daaw joxo naa lépp ki daaw moom joxe at yi yëpp ñu ngi ko fi doon joxe waaw dañ ko daa teg ci loxol soxna Ndey si la euh, kii soxna Ndumbe Seck waaw moom moo ko daa jox euh, soxna yi kenn ku nekk barkeelu 1000 euh, francs la benn russi bu nekk di wecceeku comme dañu nekk ci liggéey waa ci kanam tuuti danañ ko indi incha allah waa kay jërëjëf ñu ñëw rek ci li nga xam ne si ne mooy liggéey bi ba léegi waaw añ moo pareegut man moom tey moom bu daganoon woor sax damay woor waaye dama xam ne bu ma wooree gars yi sant yi sëriñ may reetaan moo tax du ma woor soxna si eh, ñu ngi lay nuyu waaw na def ba yaa ngi ci yàmm boo mënee fàttali tur beeg sant bi. caam laa tudd na ay ay waay waaw saare ni di ko suñu ko di yàlla nag baax ñaan ñu teewe ko yi bare bare yaa nday faal yàgg ko taxawee may ko wér ak wérle ci bis lool ñu waa Daaru Xuddoos rek amul lu di sëñ Mbàkke kontaan ci bis lool nag jërëjëf waaw ba léegi rek eh, ñu ngi ci liggéey bi jàkkaarloog soxna amisi Si eh, soxna Ami Si eh, di kenn ci soxna Sëriñ Alaaji Si la waaw soxna Amy ñu ngi lay nuyu lu bari di la siyaar. waaw ñoo ngi siyaar lu bëree bëri bari sëñ bi. waaw ñu ngi tey fii ci résidence Serigne Touba Khadim Rasoul waaye fii ci màggalu Daaru Xudoos euh, nga bokk ci jëwriñ yi nga xam ne si ni yaa ngi topp ci gannaaw soxna Ndeye Fall waaw lii bis bi noo ko gisee. waaw bis bi de mi ngi nii rek wax gi nag daa bëriwul damaa mën a wut ay wax. waaye ah, daal ñoo ngi ñoo ngi sant sañ bu lu bëree bëree bëri bëri ah di sant suñu mbokk taalibe yi nga xam ne Yamoussoukro moom dañoo àndandoo doon benn bopp màggal gu jot daal ñun ñëpp dañ koy jàppoo rek doon benn ñu taalibe sëñ son yi bu ñu taalibe tijaan ñun ñëpp daal dañuy mànkoo rek daal di màggal bés bi macha allah. ah ah, ah naa bu gisee wàññi xol bi dana sedd. <laughs> macha allah. sëñ bi nag yow la koy bàyyee. ah bi moom. daa jàpp ni teel a guñ waaye taal nañ bi sëñ bi moom yow la koy bàyyee nee na ma sama wàll. Ah. ko sëñ bi loo. ah di moom kay bis bu yëgee ne taal moom yaakaar naa moom mu <laughs> eh, euh, waaw kon mbokk yi ni nga xam ne noonu lañ leen ko waxee woon rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi topp programme DSS TV muy Daara Sope Serigne Touba TV ñu ngi fii ci. résidence Serigne Touba Khadim Rasoul ci màggalug Darou Khoudoss dimanche le 6 août 2023 1445 euh, mu mel ne que waañ yi yaari waañ la demoon nañ ca wenn wa dellu siwaat nañ ci wenn waañ wi ci des euh, fekk fi it euh, sunu yaay soxna Ndey Fall mu ñëw ci deuxième waañ wi sunu tante soxna Ndey ñu ngi dellu si di la waat fekk nañ li ci deuxième waañ wi de Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala barakatu maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu bokk jullit yëpp di wax maanaam ñoo ngi ci deuxième waañ bi ah deuxième waañ bi nag moom it lépp a ngi fi màggal gi daal macha lépp koo xam ne rek lu waay bëgg yaa koy xool yaay naan jox ma lee waa ne macha lépp mat na dama daan maxal am ceeb am lépp am na ah dañ ko commencé ba yeggalee ko siin wax dëgg yàlla macha allah deuxième waañ Magalu Daaru Xudoos am na ñaari waañ ñaari waañ yi cin yu ne ngi bernde ganaaroo tufe lépp looy bëgg rek yaay sosi daal a ah, baax na jërëjëf nekkal ci jàmm. si ñu man man maay Adja Sylla di leen wax ne ah macha allah màggal gi moom def nañ ko ni ñu ko daan defee rek dëgg yàlla dara manqué wul moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di teew ñaan teew ko ay ati at macha allah. non non xam nga dañ ciy barkeelu rek aayuñ ci noonu ba <laughs> bàyyi nañ ko si si si ak loo yéen yi <laughs> si eh, edit eh, eh, man sama micro kenn du ko daw ada ak man nit waxal ak man ay yumpa ñu langsung suñu bisa bi sikil wax wa ya yow kan man la soxna mbenn doy waaw am ñu ngi rafetlu magal gi bu baax magal gi wax dëgg yàlla ñun moom waa daaru xuddoos lañ ndax suñ papa daaru xuddoos la moo tax ñu ngi koy rafetlu bu baax mane yaa ngi lépp doy na togg yaa ngi ni mbaxal yaa ngi fi dama daa yaa ngi fi dara manqué wul daal ñuy ñaan yàlla di ko teewe ay déwén ni déwén ci barke Xaadim ragal micro ba mel ni man rek moom daal doy na man. Eh, waaw xam naa danaa dellu si man dama mën a laaj de. Eh, yatti mbane gis naa ko fi eh, benn bii nii moom lu mu def noonu. Wow, wow, ah d'accord yari ci ni mbaxal la ak nu dama damada ah lu bokkut ak yi nga xamne ci ne mo nek ci wañ wo mag ba nek ci biti yeen dal tay mom ñi sante ci la ngeen fi nekkal rek tay gi mom ak ñi ak ñi sante ci la ñi sante jaxate ak ñi sante ah, ñi siise waaw ñom ngeen fi nekkal de waaw ah ah ah mom moom bu dul woon sama tante ndey mom kon damay wax ni ne am nañ ci wàll waaye nag moom sama tànta tax du ma ci mën wax lu sori ñu dem seeti soxna nday Kumba Jeng waaw comme ni nga xam ne noonu lañ leen ko waxee woon sànq ñi ngi fii ci ñaareelu waañ bi gannaaw bi ñu waxtaanee ak sunu tante soxna Ndeye Fall ba pare e, ñu dellu siwaat e, waxtaan ak ki nga xam ne si ne mooy soxna nday Kumba Dieng soxna nday Kumba Dieng nag moom mooy e, présidente Euh, Touba ca kanam fii ci Touba Yamoussoukro euh, mu feggoo ak sunu jarbaat soxna Fatou sàll soxna Ndeye Kumba euh, ñi ngi lay nuyu di la siyaar ñi ngi ci deuxième waañ bi mel na ne que yow yaa ko jiite. waaw salaamaaleykum sëñ Touba. waaw waañ bi ginnaaw bi ko suñu jëwriñ Tànday tegee sama loxo maa ngi ceeg soxna yi ay jàmbaar lañu wax yàlla togg yi pare na. jaar na yoon di ñaan yàlla ñu fekke ko ay at yu bare bare bare ci barke Mohamed waaw ah, di ñaan yàlla màgg gi luñ ci ñaan yàlla na ko suñu borom nangu ci barke Xaadim Safa waaw comme ni nga ko waxee rek di ñaan waatu Touba ca kanam tamit di leen gën a soññaat dëgg yàlla macha allah am na solo am na solo dëgg yàlla ñi góorgóorlu waaye ñu ngi leen di gën a soññaat waaw ci at yi ci carte yi ñuy gën di barkeelu. parce que lu baax la wax dëgg yàlla ci ci Touba waaw di ñaan yàlla yàlla defal ñu lépp luñ mébër rek yàlla sotal ko yàlla yokk xéewal gi bu baax a baax a baax ñu fekk màggal yu bare bare bare waaw soxna Fatou Sall ñu ngi lay euh, maa ngi lay delloo di la ziar. di jaar mbooleem ñi ñëw ci màggal gi ah, di wax ne màggal gi nag moom xéewal yi rek mi ngi nii ne gaañ dara manqué wut waañ bi lépp lu ci war rek jigéen ñi def nañ ko fi mu ne nii nag ñu ngi waaj a toll ci yekk yox nit ñi ñu barkeelu xéewlu incha allah dëgg yàlla di ñaan yàlla suñ boroom nag mu may ñu fekke ko ay at yu bare bare bare waaw ñëpp di ko comme mbokk yi ni nga xam ne noonu lañu leen ko waxee woon rek ba léegi ñu ngi fii ci résidence Serigne Touba Khadim Rasoul euh, fii ci Touba Yamoussoukro soxna Ndeye Fall amal euh, taxawaay bu mag euh, ànd ci ak waa dayre daayira Touba Yamoussoukro bi yëpp and ci ak ki nga xam ne si mooy Serigne Thiaw Diaw moom tamit ci wàllu jiw yi ni nga xam ne noonu lañ ko waxoon rek ñu sant Sylla ak ñi sant Cissé ak ñi sant ko ma tey mel na ne seen affaire baax na Euh, Damada mi ngi nii ngeen jàkkaarloon ak li nga xam ne si moom mooy wàllu ceeb bi moom itam euh, macha allah euh, comme ni ko soxna Ndeye Fall waxee woon rek Damada la ak mbaxal ak ceeb moom ngeen jàkkaarloon nii tey gars yi sant yi si la mel na nekk seen affaire dana baax tey macha allah ñu ngi fii ci waañ wi. ci résidence Serigne Touba Khadim Rassoul fii ci Touba Yamoussoukro saboté jàng yi mooy fii ñuy dënalee ci euh, kër sëñ bi euh, bii ñu nekk nii dafa xaw a xat lool ba nga xam ne si ne daanaka euh, kenn amul foo teg sa tànk waaye nag dara sababu ko lu sànc yi nga xam ne ci la ñu nekk nii moo ko waral waaw na ko hmm? hmm, waaw waaw waaw waaw waaw euh, ba léegi leen ko waxee woon rek euh, yéen di jàkkaarloo ak mbaxal yi gars yi sant yi Cissé sant si la euh, ñoom mel na ne fii ne waxatuñ dara dama daay moom xam naa ne ñi sant ñi sëy moom foofu la ñuy Euh, xam nga li ma leen di wax mu nii li waral euh, ñuy wax mooy euh, fii ñu dënn li nii vraiment dafa xaw a xat li ko waral nag mooy sànc yi loolu moo tax gis nga fii ni bool yi dañ ko teg ba teg ci kaw escalier yi ndax ñàkk am espace

fédération bi nga xam ne si ne ñoom ñoo yor wàllu ndab yi ñuy yóbbu raxasu yi noonu हसे Ndeye Fall waaye tam mu ànd ak soxna Ndeye Sylla eh, bi nga xam ne si ne moom moo fi eh, taxaw taxawaayu Adja Soxna Ndumbe Seck moom soxna Ndeye Sylla moom ngeen jàkkaarloo ni eh, kii ci des ci loxo càmmoñ di Adja Soxna Ndeye Fall ak Adja Soxna Ndeye Sylla ñoom ñoo toog ni gannaaw bi nga xamante ne taxaw nañu waañ wi ñu togg ba noppi xale yi dem dem jox ko ñi nga xam ne si mu ñoo ci màggal gi ñuy xéwlu euh, mel na ne que bool yi wax dëgg yàlla euh, macha allah dem na bay dellu si euh, kon loolu mooy wane ne lépp doy na te am na ci ay kit yoo xam ne si ba léegi kenn yëkkagu ko liggéey bi rafet na sell taxawaay bi tam mat na soxna Ndeye Fall def na li nga xam ne si ne moo ko waroon lépp wax dëgg yàlla def na ci ba def ci loo xam ne si ne lu kawe njort la waaye nag Serigne Touba mi nga xam ne moo tax muy jëf yàlla na gis jëf bi eh, te eh, nangul ñu ko ñu yàgg ko fekkee ay déwén eh, te kenn bañ a wute di leen fàttali rek yéen a ngi topp daara soppe Serigne Touba mu di leen amal li nga xam ne si mooy wàllu reportage ci màggalu Daaru Xudoos fii ci Touba Yamoussoukro yu bëree bëree bare waaw ñëpp di ko fekkee ànd Eh, waaw eh, kon ngeen jàkkaarloo ak soror bi nii eh, mu nekk benn waaye nag nekk bu kawe bu mag a mag ci biir kër sëñ bi ànd ak xubba bu mag ngeen gis ko nii fii nag moom mooy bunt bi mooy escalier yi nga xam ne si ne fi la ñuy mën a jaar pour àgg ci kaw soror bi soror bi ci suuf lañ ko samp Euh, mu wuti kaw euh, bokkul ak yi nga xam ne si ne dañ koy tàmbale ci kaw rek mu wuti kaw bii moom ci suuf la tàmbale euh, wuti kaw muy soroor bu gudd bu am daraja boo xam ne si foo toll ci Yamoussoukro rek da koy xaw man di seen di jaajëfal bu baax Serigne Balla Diop jëwrin ak mbokki